commission bi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu séntu weer wi euh, ginnaaw bu ñu àndee julli timis ba noppi ci njiitul sëriñ Modou Mamoun Bousso waaye ak sëriñ Abdou Diop imam mi yore kàddu gi ak waa mu daayira Muxaddamatul ma xam ngeen ne saa yu ñu jullee timis danañ yéene ci rajo jumaa ji wax na sëriñ bi ne nañu séntu weer wi te ku ci am xam-xam bu wér nga yëgle ko ñu ngi jégalu ba baax nag guddi na tey jii waaye dara waralu ko nag lu weesu taaxeerlu ak bëgg a am lu leer naññi bi ñu ba waxtu wii nag Euh, jokkoo nañ ak Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa moom ci boppam kàddu yi nga xam ne moo fa jibee incha allah sëñ Abdou jóob dana leen leeral fii ci commission bi jaar fépp ba agsi fii su ko defee ñu mën a joxe ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi joxe kon ñu déglu sëñ Abdou Diop. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaw ni ko sëriñ Fallou Gallas si la waxee rek. ni nu baaxoo def def nañ ko muy sëñ bi dañuy yebal ci jumaa ji ñaar fukk fan ak juróom-ñeent yu ñu yéene ci wax ne nañ séentu weer yi ci ko ci xam lu wér nga ñëw yëglu ko bu ñu defee noonu nag buñ ko yéenee bu noppi dañuy toog ci soowu jumaa ji di lu xibaar yi jóge ci gox yi ak di séentuwaale weer wi biñ ko defee nag ba nga xam ne gee ngi waaj jot yàlla dogal na am na béréb bu ñu dégg ne ne wax ñu di ca waxi wax waaye ñu jokkoog béréb yooyu ngir di ko leerlu nga xam ne boobee booba julleegut ba nëgë ni ca loolu la nekk di ko leerlu waaye amuñ ci leen lu leer ndax ñan fa xam ñëpp koo ci koo ci jokkool mu mu mu wax ne xamu ci dara wala wala wala sax mu jokkoo kañ wax ne kooka la mu ne mu ne du kooka far du du ab télé dañ lay jox téléphone nga jokkoo nit mu ne la téléphone bi du tur ñu wax du man mm-hmm. am na ci koo xam ne sax dañoo jokk ak moom nii yilimaan la mu ne mu ne moom du yilimaan tur wi tur wi tudd nii ba noppi du yilimaan bañ defee noonu nag ba waxtu wi jot nag te lu leer leerlu gisuñ lenn lu lu nu mën a wax ne weer weer yu feeñ nag xam nañ ne kon nag dañuy dañuy war a mottali kon tey jii ci altine ji di ñaar fukk ak juróom-ñeent suba di fanweer di talaata ñu xam ne mooy fanweereelu fanu tabaski bi waaw kon kon ñu xam ko ñu xam loola bu wér a wér moo kon alarba war a doon benn fan loolu na ko ñëpp xam bi ñu defee noonu ba kii nag lañ dañ jokkoo ak sëñ bi yàlla dogal sëñ bi wax ak noonu ci direct sax wax ak euh, leer nu leeral ko lépp nu te mu ne lool loolu baax na ci dee leen ko leeralu bi ñu leerloo ba waxtu wi jot nag te gisuñ lenn lenn lenn loo xam ne mën na noo may ne ne gis nañ am na ko gis gisu weer wi wér na ci leen ci leen déclaré xam ne kon suba dañuy mottali na ko ñëpp xam waaw al Abdul Xadim Diop imam moo doon jot jot jot léegi moo doon mul jotli kàddu yi fii ci Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wafi